am solo nee na la ak grâce yam grand ma ngi lay ziar. waaw mais xam nga li nga waral quoi. vraiment ko xam xam ne boo seetee moom musique moom man benn woykat laa bu ñu waale mais fii di jëf waaw bu ñu bu neex ba pare xam nga macha allah xam nga nekk seen ah, waay yow waaw non eh, ñun non dañuy dóor waaw. daal ñu dañ koy bu américain bi sax dañ koy non non amul kii quoi fii moom xam nga Sidy Diop fii moom macha allah quoi fii moom xam nga boo bëggee gis vraie musique vraie mbalax vraie musique boo ko bëggee gis fii ñëwal tey Sidy Diop bi tey moom lii moom xam nga benn bonus la boo xamante ne xam naa moom ku dab ba affaire yi moom xam nga fekkewoo tey Sidy Diop bi mooy xam nga fekkewoo dara quoi waaw yaa ma ko nam tey bi lépp ngay gis ak carré yi sax tey dañuy mbalax tey tey moom carré yi dañuy mbalax quoi non non du yomb du yomb ak Serigne Touba si di yëpp parce moom li ma li moom moom tey lii moom tardé tey moom nga da nga dabati quoi waaw li parce que tey dinañ ci xaar créativité dinañ ci xaar décoration bu ke bu am musul am Thiès non je me dis je me lii c'est la première fois ñu koy def fii mhm. donc juste pour bégal suñu invité ñu kontaan ñu xam ni ay jeune ñoo fi ne gëm nañ seen bopp te xam nañ lu ñuy def. ndax ngeen taamu Thiès alors que yéen da ngeen taamu Thiès. waaw xam nga holding events dafa nekk euh, groupe d'événementiel boo xam du lu ndaw donc on a démarré l'année dernière ñu tëgg Keba Seck Sams après ñu jël Waly Seck yóbbu ko Saly ren ñu ni pourquoi pas du ñu ñëw Thiès waa Thiès gën ñoo xam mm. ñu dëggal suñu bopp. Mm. holding events mooy leen ci Tekkilu. waaw euh, structure d'événementiel holding. holding dul ndaw. holding bâtiment wax lu yaatu la dul ndaw. waaw <laughs> tey jii ñu ngi def euh, organiser ay événements mais dem nañ ba di xalaat ëllëg. ñuy organiser ñun suñu bopp mhm. événement mhm. ñu ñuy woo ñuy dem di organiser nit waaw tey ngay woote Sidy Diop euh, message bi lan la ak la ngay dénk ñi xam te ne à chaque fois ñu ngi Thiès ba nga ñëw fekk événementiel bi waaw Sidi Diop doomu Tiwaawan la Thiès la dëkk. bien vrai mi ngi Dakar mais Thiès waa la ndax je me dis Tiwaawan Thiès benn la. te xale bi mën na way mm. xam na li muy def. donc euh, waa mm. jeune talent la. Mm. ku ko jàppale poussé ko dina def mais neex na feesal de xam ngeen loolu. ah mais neex na feesal de. waaw loolu moom dëgg la mais incha allah dina fees na neex na yëngu. dina tur ba yëmbalang. waaw te di ngeen fecc wala dañuy baal wala dañuy ngoros. lu leen neex dina dëgg laa baa nga ne. ci kaw. baal baa ngi ni lu leen neex daal. gerte mooy bàngale. waaw. ba diir ñëw Thiès tey loo yëg. ah mbégte ak contentement parce que ki ko organisé sama frère la grand frère la et tout ñu ñëw fii tey. sag la ah Thiès aujourd'hui jeunes yi xam nga génn bége et tout yaa am gën a xam ànd ak nag samay. ndeysaan waa waa yaa ma fashion waa yaa ma fashion gis nga waa yaa ma ñoo nekk nii def ba mu baax rek accompagner suñu doomu ndey. gi des deux jours. ah <laughs> ko dundee. cette saison. <laughs> <laughs> waaw waaw dañuy tëj saison kay. baal ngeen tëjee saison baal. waaw mais <laughs> bu ñu fooyee après ñu jaamu yàlla rek. ay waay nekk waaw. après après foo ji yàlla rek. message bi lan la <laughs> ak tey li ñu mën a ci yéen tey. tey ah xanaa kii rek. waaw assister événement bi et tout. te tamit Siri waaw comme que day soog door na yàgg na mais aussi mu ngi jëm kanam jàppale ko. tamit ko gis non no musuma ko man musuma ñëw soirée jëkkër nii man musuma dem sax soirée si c'est la première fois <laughs>